Matar Sall yéeni bi duñu xamal ne kay gannaaw kay ndaje moo xam ne daal ca lañ amal moom Serigne Moustapha Sy yi daal yëkkati na ko moom kay bokk na moom professeur Issa ba muy dem ci nga moo di dialogue national la moom kay kàddu yàlla ci ne moo yi nga xam ne ñoo nekkee ci Afrique di doxalee maanaam daal noonee la njiitu doxalee képp koo xam ne yaakaar na ne yaa ngi xool toogu njiitu daal ñu daal lay sàkkal pexe bu fekkee na Xalifa Ababacar daanaka loolee bokk na ci li nga xam ne moo tax ñu daal di koy téye ca kaso ba yéene bi dañu xamal ne maanaam daal dépense yi nga xam ne daal dafa seer lool tay taabu Sénégal di ko jëfandikoo rawatina ñi nga xam ne daal ñooy liggéey ñoom jamono ji nag gannaaw nag njiitu réew mi kàddu yi nga xam ne yëkkatoon na ko jamono ji nag daan na koy dëggal waa lépp loo xam ne nag moo di internet bi ko wàññi di wax nag ci lépp loo xam ne nag jëm na ci feer bu fala mi kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko jëmali ne ci contrat yu ni mel moom Ousmane Sonko mu kay mën naa dal lu ji ndax kàddu yi nga xam ne daal da ko yëkkati di ko teg ci nguuru Sénégal maanaam daal kàddu ya li nga xam ne ne moo di feer bu falami loolee dara du ci dëgg du samay kàddu kàddu libération ñoom kay dañuy xam contrat baa ngi nii waa di wane contrat bi nga xam ne na maanaam daal ma ngay gën di wulee ñaay waaw ci jamono ji lépp loo xam ne nag jëm na ci mbirum pétrole mbirum Aline Sall ak pétrole bii nga xam ne daal moom lañ doon jaaba jonge mbir ya nag ma ngay gën di wulee ñaay observateur di ñu xamal kay jamono ji waa OFNAC am na enquête boo xam ne def nañ ko waaw maanaam daal wala xam ne daal noonu la doxale ci dialogue national moom général bi dañu xam ne bu ne du ci tontu réewum Sénégal ngir lépp loo xam ne jëm na ci kaso yu fees ñu daal di koy wàññi waaw yéen bi di source di ñu xamal ne ñaari junni bracelet yi nga xam ne daal moom la wax ne soxla nañ ko loolee danañu dikkee lu toll toll ci juróomi milliards jëm kaw maa nga ci l'évidence yéen kaay yéen kaay bi dañu xamal ne la xew Thiès ca tribunal bi Thiès doy na waar Thierno Sow daal la doon atte waaw gannaaw ba ñu koy atte mu ne may leen ma ca duusa yéen kaay bi dañu xamal ne moom soxna soosee kay ba mu demee ca duus ba daa di takk boppam daa di xaru fi nga xam ne nag moo di foofee nga xam ne moo di tribunal bu Thiès doy na waar ba suba